mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey nag dafa am lu ma seetlu ci réew mi rek mu naqari ma mën naa ñëw waxtaan ci alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV muy ñaari mbir bi ci njëkk mooy président Macky Sall wax bi moom laa koy adressé ndax moom dafa wax ni Sénégal émergent la bëgg maam lu ma seetlu mooy Sénégal émergent président boo bëggee mu dox mais ni ma gisee néew di doole yi di doxe ci réew mii ak nii ma gisee euh, entreprise yi nekk ci réew mi di ko doxalee nii Sénégal mënta émergent président li may wax nag dama koy wax c'est parce que mooy addina bi daf ci bari ñoo xamante ni su ma defee vidéo dañ koy xool dama bëgg nag loolu ngeen wax ci seen xalaat parce que Sénégal la ñu ne te néew di doole yi ñoo fi ëpp bi ma ci njëkk mooy SDE am facture cinq mille francs di dajale lu ko faye amagu ko ba nga fekk ko fa coupé ko muy wër lu mu fayee cinq mille francs nga ñëw tegal ko ci junne ak juróom benn téeméer lu teg ni ko moom nga war a tegaat ci cinq mille bi pour mën a amaan ndox mais kooku fan lay fayee ndox ci àddina président Macky Sall ñu ngi lay ñaan quoi bu fekkee yow yaay président Sénégal mais loolu mooy lan nit ko facturé junni amul lu mu ko fayee ba nga coupé ko ñëw tegalaat ko ci junneeg juróom benn téeméer ni ko boo ko fayal doo am ndox loolu mooy gën a yóbbu nit ki ci pauvreté parce que nit ku amul cinq mille nga tegalaat ko ci junneeg juróom ko boo ko fayul bon doo fay mais loolu fu mu am réew yu baax yëpp boo fa demee da gis ni ndox même buñ la day coupé dañuy wàññi ndox mi rek mais duñ ko coupé ba mu jeex parce que nit warta nekk ci kër amul ndox Sénégal rek ngay gis nit koo fayeeku facture amu ko nga ñëw ni kaccit ndox ma tëj ko ni ko doo naan doo raxas doo togg parce que li nga ma ameel boo ci tegaatul junneeg juróom-benn téeméer doo fay mais président Macky Sall loolu waxal ñu ci loolu miti muy benn bi ñu des mooy man dama lu ma jaaxal mooy réew mi dama dégg ñu ne Gaston Mbengue dañ koo fal ministre. waaw man ndax damay bëgg a jommi koo xamante ni dama dégg ñu ni ba muy commencé la mu yoroon di ko jaay l'islam da koo tere mu juge te dugg ci làmb l'islam da koo tere mu juge ci dugg ci football ñu perte daanu. ah saaga sëriñ nga fal ko ministre waaw mais intellectuel yi nekk ci réew mi nga xam te ne dañoo dem France dem Amérique jàngi ñëw fii yor seeni diplôme war laa mën a conseiller président de la république ngir réew mi jëm ca kanam ay Gaston Mbengue ban njariñ lañ ñu amal dans les normes bu fekkoon ci réew la mën nekk moo xamante ni Gaston Mbengue bu waxee dara sëriñ lu jaadoo ci yoon waxuñu ñu dàq ko parce que ci réew la mais dañ ko war a exclure man je ne suis pas contre président Macky man je ne suis pas contre président Euh, Sénégal laa bokk damaa war a wax mais loolu bokk na mooy deuxième affaire bi ma jaaxal bu fekkee ni loolu am na Gaston Mbengue nañ koo fal ministre man loolu yéem na ma parce que am na ay xale yu am personnalité xale yu am njàng yu am xam-xam yu mën a avancer réew mi bi des mooy Youssou nduur ak Thione Seck dimbali leen nu dimbali leen nu ay référence ngeen donte tala am na ñoo xamante ni du ngeen seeni référence parce que Serigne Touba ak Alaaji Malick seeni référence ak mag ñu baax ñi fi nekk mais am na ñoo xamante ni ci yéen la ñuy référé wu yéen ñi jiitu ci kanam nag bu ngeen dee mel ak xaj ak muus ñi topp seen ginnaaw mënoon leen leen ak lu baax donte la génn ngeen ay wax yu baax yu jaar yoon yoo xam xale bu ci topp mën naa réussir ci seen njàngale mais bu ngeen ko waxee ba pare te jëfe waleen ko aussi amul benn njariñ yéen nag ñi nga xamante ni yéen a ngi may déglu bëgg naa ngeen wax seen xalaat ci lii moo wax ba xam dëgg la warul dëgg mën naa am sax ma juum mais man sama xalaat lii la maa ngi leen di sant ba wax di leen gërëm wa ma zalika ala allahi